dañu am benn artiste bu nekk euh, Kolda benn artiste rappeur bu tudd Mamadou Diaw ñu ngi koy woowe MC Beladio xam ngeen ne fu mu ne nii presse bi yàgg na di wax ci xale yi nga xam ne ay xale yu ndaw douze ans treize ans quatorze ans ñuy ëmb wala ñuy ñuy violer te étude bu ñu def fi Sénégal wone na que ñu ci bëree ci ci région yi lay lay jógee ñu ci bëre te euh, am na ñoo xam ne ñu ci bëre ci école lay jógee maanaam professeurs yi ak euh, maîtres yi ñoom ñooy ñu ci bëre ñoom ñoom la ñuy la ñuy jiñ te fan yi rek ci yi ñu ngi doon wax benn fii suñu ci ci biir dakaar ñu ngi doon wax benn viol boo xam ne enseignant bi daa ne viol bi c'est un viol consentant. waaw léegi ñun dañu am artiste bi moom dem na ba am fit ci benn musique benn morceau teg benn en scène maanaam di wax benn enseignant lu mu def benn élève. di woo woo population di woo enseignants yi pour pour pour que ñu mën a déggoo pour ak pour ñu mën a xeex lii pour mu bañ amati waaye enseignants yi parce que ci biir dafa am ay tur bu ñu joxe mais du turu du turu nit mais ay ay sant la jóge ay sant ma ay monsieur Diaw monsieur Baldé monsieur Fall ñoom li ñu dégg noonu ñoom dañu teg ne seen bopp kat dañ leen tooñ dañ leen a saaga fu mu nee nii. Euh, euh, kii artiste bi daal ku ku réew la waroon na xool nag balaa muy wax di wax joxe ay tour muy wax ci wax ci corps enseignant maanaam pour ñoom daal tooñ na corps enseignant ñu jàpp ko noonu tuumal ko ba yóbbu ko tribunal ñu ñu ngi koy woo semaine prochaine dix huit septembre te ñun loolu moo ñu jaaxal parce que pour ñun artiste muy constitution muy suñu suñu suñu loi ci suñu propriété propriété intellectuelle artiste moom li mu mën a li mu mën a indi comme message ci aar ci aaram la ko mën a indi muy écrivain muy poète muy slameur yi ñuy dégg muy artiste peintre kopp képp ki nga xam ne artiste la ci ex expression artistique bi mu joxe maanaam li ci li mu ci jëf-jëfam ci loolu la mën a ñëw di yar suñu société bi te ñun comprendre ñu fu mu ne nii comprendre ñu que ñuy ñëw nag di portel suñu artiste bi plainte ñun suñu xalaat ñoom dañ ñëw a plutôt ñëw ne à ah, sa li nga wax dëgg la nañu booloo pour ñu xam nak la ñuy def ba li bañ a amati kon pour ñun dafa pour ñun groupe enseignant bi porter plainte pour bëgg bëgg ko sonnal defe naa kan nañu war a sonnal dañu war a sonnal ñi nga xam ne ñoom ñooy toog di toroxal suñuy doom yi waaw loolu moo tax ñu fu mu nee ni ñun daal ñun ak suñuy partenaire du ñu taay dinañu xeex loolu pour que ñii nga xam ne bu ñu bëggee xeex dara nañu xeex li nga xam ne mooy ñii nga xam ne moo ñu yàqal suñu société mais du ñëw jël benn ki nga xam ne deful dara nga xam ne fu mu nee nii mu ngi ñuy mu ngi ñuy éduquer ñu jël ko ne moom la moom la ñuy topp yoon pendant ce temps nag ñeneen yi ñoom ñu ngi continuer def lu leen def moo tax ñu naan groupe enseignant bi na ñu delloo seen xel ñu ñëw ànd ak ñun ñu liggéey pour ñu mën a def faire en sorte que lii dootul amati. voilà loolu mooy moo tax ñu woo mais léegi bëgg bu ñu ko buggulee dégg nag waaw wax dëgg yàlla ñun en tout cas suñu suñu corporation dinañu def lépp loo xam ne pour ñu mun a comprendre que ñoom nekkuñu ci dëgg. artiste moo doon nekk jot ci dëgg sinon bu bu bu yàggee li bu noree bu noree continuer lu ñuy def mooy art benn artiste dootul ñemeeti wax dara dootul am rôle éducation artiste bi am et après enseignants yi ñoom di ko couvrir bu ñu ko couvriree bu boobu boobaa musiba moo fi am te loolu ñun bo ñun ànduñu ci jërëjëf. moralement woo nañu ko déjà dañu am suñu représentant AMS bu nekk Kolda Didier Mbaye moom ma ñu yégal moom ma ñu yéegal affaire kii bi affaire bi euh, fu mu nee nii am na ñoo ay euh, partenaires ñoo xam ne nee nañu deux partenaires ñoo ne dañuy jàppale ñoom bëgguñu feeñ normal c'est normal mais dañuy jàppale euh, commettre nañu benn avocat bu nekk bu nekk Ziguinchor waaw mu nangu na nangu na moom jël défense fu mu ne nii voilà pour ñun daal lu ñu bëgg mooy. population bi ak même autorité judiciaire yi comprendre que lii moom mënul sotti c'est parce que véritable enjeu ba néew foofu véritable enjeu bi ñun lu ñu bëgg a mën mooy ñu pare ñu bàyyi poursuite yi ñu toog déggoo dem di di xeex ci li ci li nga xam ne euh, moom mooy véritable enjeu voilà loolu moo loolu mooy suñu sens ñun suñu sens nekkul nga xam ne ñuy ñëw di tuumal nit ñi di di leen di di leen sonnal mais ñu bàyyi itam suñu artiste ñu koy sonnal noonu te ñu ngi ñu fekk ne ñun lu ñu xalaat ne moom mu ngi ci dëgg voilà nitu dëgg la ñuy xaar gars yi ñëw ànd ak ñun ñu booloo ñu ñu ñu ñu xeex li nga xam ne lii moom c'est très grave parce que volu xale violu xale yi moom dangay ngay waaru quoi c'est waa grave voilà waaw suñu suñu représentant AMS Kolda euh, bi bi euh, morso bi génn morso bi fekk fekk mu ngi daw de commencé na la woo pare ñu yëg ne que enseignants yi kontaan nañu enseignants yi jot nañu dem sax ba ci ci ci ci waajuru suñu artistes yi jot nañu dem suñu suñu président finalement suñu président moom moo njëkk a euh, euh, woote benn réunion pour réunion pour gars yi mën a déggoo pour ñu gars yi mën a waxtaan ci loolu suñu artiste bi mais ak mais message yi ci pulaar la yor nañu audio yi mais message bi message yi ci pulaar la dem na ba wax na gën gars yi man daal foogoonu ma foogoonu ma daal damay tooñ dafa mu li ma doon def mooy def li nga xam ne moom mooy sama mooy sama mooy sama mooy sama warugar waaye bu dee am na ci yéen nga xam ne da ngeen fekk tooñ naa leen bu dee tooñ naa leen baal leen ma ax waaye enseignants yi ci loolu la ñu jàpp ci baalu ax boobu moom la ñu la jël comme preuve ne ah comme que reconnaître na que tooñ na. ñun nangu ñu ni mu tooñee parce que moom xale bu ndaw la daf ñu tooñ kon dañ ko ñu ngi koy topp tribunal loolu moo loolu moo war ga gars yi ñëw convoqué ko gendarmerie après gendarmerie ñëw après huissier ñëw convoqué ko tribunal loolu rek pour wax que ñun wal ci waa AMS def nañu lépp loo xam ne ñoom yaakaar nañu ne loolu gars yi mënoon nañu toog te euh, waxtaan juboo pour pour ñu bokk ñu bokk li ñuy lu ñuy li ñuy xeex AMS dafa mus a bokk ci li nga xam ne ci défense su artistes yi loolu sax mooy def mooy suñu suñu suñu credo waaye mosuñu ñu gis ñun ñu ñu njëkk a teg en pointe ñëw taxaw ci kanam pour dénoncer lii lu tax parce que ñi ci affaire affaire yu njëkk yi affaire yi ci Dakar dakaar la xewee dafa teel am benn lu mu ma mun a am benn comité bu bu bu tegu boo xam ne ci la AMS bokk c'était pas la ñu ñu teg tegu en en pole position. waaye fu mu ne nii lii ci Kolda la xew te Kolda dafa sore te ko ki ñu ki ñu fi yoroon ki ñu alerté mooy président AMS Kolda parce que moom mooy représenté euh, musiciens yi foofu moo tax fu mu ne nii ñi nga xam ne ñi ko yéeg teg ah, te génn na ci journal et tout mais gars yi yéeguñu ko ni ñu ko yéegee bu bu lii xewee euh, euh, biir Dakar loolu tax loo tax ñun ñuy woote point de point de presse bi pour alerter opinion yi alerter ñëpp. pour parce que bu nore bu noree sore pour ñu mën a pour commité mën a formé wu pour ñu mën a ànd ci ci ci xeex bi quoi jërëjëf.